jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci kër Mbaye Fall seet si fi xale boo xamante ne ndaanaan la ci làmb gaa mën naa ni ba mu duggee ci làmb yàggul waaye macha allah doon na xale boo xamante ni làmb bi mujjee bëre state Jom Iba Mar Diop gis ngeen jaloore bi nga xamante ni moom la defoon làmb ji promoteur bi nga tëdd woon mooy Idaali Ñing muy Ñing production. xale bi tey moom laa seet muy Ibo bu Kër Mbay Fall tey ma ñëw fi fekk fi waa Kër Mbay Fall gépp toog ma seet ko ngir waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ni dafa yokk làmb xale la boo xamante ni damaa bëgg ñu bàyyi ko xel ndax wolof nee na doomu ñay kenn ko ñaanal rëy déedéet danga koy ñaanal gudd fan ndax bu guddee fan rek rëy am na njort boo xamante ne làmb ñu ngi koy séentu ci moom rawatina gox bi nga xamante ni fa la fekk baax moo waral tey ñu seet ko ngir waxtaan ak moom lépp luy yokk làmb champion maa ngi lay ziar. waaw Baye Jële maa ngi lay fay. waaw onze billah bisimilah inna wali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Babul Mouridina jaroo lakkati Cheikh Babacar Mbacke mu kabaroo gàcce ngaalaama Cheikh Ahmedou Mbacke mu kabaroo sama yaakaar tey ak ëllëg waa Baye Jële gannaaw ma la nuyoo di la siyaar yaag Baye Adama caméraman bi di nuyu waa Kër Mbaye Fall ku luxum ku luxum amaana ma limee damay juum mais maa ngi siyaar waa yëpp di siyaar sama gaay yi nga xam te ne xam nga di boobu ba léegi su fu ma nekk ñu fekk ma fa yaa ngi dégg su ma ñoom laay gis ku si mel ni xam nga ñoom laay brisili ñoom Boña ñoom dem egsi sama grand frère ñoom Lamine Sarr ñoom Baye Moussa Birane dëgg góor gi seex xam nga ay yaxayaa mi nga xamante ne di booba léegi fu ma gesu dama koy gis ak mafia bi nii gars yi mafia na jolli bi ay Adama Fall bàyyi ma kenn daal amaana bu ma limee dinaa juum mais bàyyi jile ma sas ca daa am xam loo xam ne dañ koo yaakaar ci man war na Serigne Saliou Mbacké xam nga muy roi des arènes bi nga xam te ne moom la moom la moom la Modou Lo yore waxoon naa la ko ci combat ba sama jour combat. dinañ ci yegg si dinañ ci yegg nga dugg si ci làmb. non sama premier combat arène 2019 laa ko bëre. maag Ndour Afia. jour yédaali ñëng sama papa maa maa ngi koy siyaar bu baax a baax yédaali ñëng presque 2019 laa bëre sama premier combat arène le 7 avril. waaw suma ma la set avril la woon waaw man ak soo ko man ak man ak Ndour Afia waaw mu nekkoon sama première combat. kon ñaari combat nga bëre arène. waaw deux combats laa def deux victoire waaw. Euh, dernier combat bi suma ma juumul Thielé Agogo ñoo bëriwoon grand combat. Thielé woon juumoo noonu la demee Thielé Agogo woon waaw ma doon ñeenteelu combat bi su ma li ma jaaxal mooy mbooloo mi lay topp booy ñëw stade. bëgg naa xam fu ñu fu la toppee fan. dëgg la non loolu nag loolu nag lépp du man ndax gars yi xam nga rek man ak ñoom yàgg nañ depuis Mbapat loolu yëpp Mbapat la tàmbalee war na Serigne saaliwa te nekkul ne sama liggéey la nekkul sama dara lu dul ab taalibe nag mayu ko war na sëñ gaawaan lu ab taalibe laa wax de kenn ku si nekk li nga moom ma jox la ko ba mu mat sëkk du ma la jéggi du ma la dépassé war na Serigne Saliou noonu képp la demee. dellu si waat tuuti bi ngay dugg ci làmb lan moo la ci dugal. man xaw ma sax natu la yàllaa ma ko teg natu bu ma yàlla teg la mais baa jili su ma toppoon ni samay morom def kon heure bi Europe la may fekk Espagne la may fekk ndax ñun loolu la ñu xam mbaal am xaalis dem Espagne sama grand frère nekk Espagne sax maa leen nuyu a passage xam nga waa groupe sport maa ngi leen di siyaar ñoom ñëpp nga nga xam te di boobu ba léegi seetaanuñ ma. boobu ba léegi ñu ma lépp lu ma mel ci làmb rek gannaaw yàlla ñoom la waa Espagne sama grand frère di nekk foofu mais baa jëlee damaa juum waa Ñoojoor waa Ñoojoor heure bu ma leen fàttee du ma gor heure bu leen fàttee du ma lu ma am ci làmb ñoom ñoo ma ko defal waa Ñoojoor wóor na Serigne Saliou Mbacke mais sama waa Gale dama leen di siyaar bu baax ku ci mel ni Fatou Baye Adama damaa bëgg nga jëlal ma leen ku ci mel ni Fatou Selbe xam nga ak sama yaay booy maire bi waa sama grand frère moo xam nga di siyaar tamit sama kot su grand Ibou sama papa la pap kan maa ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax suma ma limee dinaa juum mais baa jili lamb daal bu bëggee dëgg-dëgg nattu bi ma yàlla teg la man xaw ma soon nu mu demee nattu bi ma yàlla teg la su may bëree fii lay fees dell sama premier combat arène juróomi kaar laa bu deuxième combat bi juróomi kaar fii ci kër Mbaye Fall di wax xam nga gars na ñu ñëw jàppale ay ndaw lañ wóor na Serigne Touba ñuy bëri ci kër Mbaye Fall gi maa ci gën a doon tout tànk maa ci gën a doon cuuna tamit samay grand frère laa fi nekkal ay ñoom laay birisuli xam nga ñoom Boña ñoom dem x ay saamaan ay sita gars yi daal xam nga rek maa gën nekk tu tànk seen biir mais ñu yaatal ma wóor na Serigne Saliou dinañ ci ñëwaat tuuti mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax muy mbër moo xamante ni ñaari combat la bëre arène wasaare làmb ñëw ngir seet si ko ñu waxtaan moo lay wan ni beddi wuñu benn mbër képp koo xamante ne am nga licence rek moo xam nga dugg ci làmb ak nga ñàkk cee dugg dinaa la seet si ngir ñu waxtaan xaaral ma gën a jege si ndax Ibo mi dafa mel ni dama koo sori. sa premier combat arène sa combat mbapat laa bëgg. nga nga expliquer ma ci tuuti ban jour nga bëre mbappat ak yan combat nga bëre mbapat ak mbapat noo daan bindee da daan nomé wala da nga daan dem mbapat bindu di bindu. waaw mbapat moom mën naa ne bind naa bëri naa si làmb nomé bëri naa si làmb tournant làmb reñe waaw lu ci ëpp nag li may ëpp lu may bëre mooy làmb reñe ndax man damay génn di dugg ci ndox mi ndax man doomu ñoo yor laa te ku dégg ñoo ku dégg ñoo yor xam ne làmb maanaam fa la buujoo mun naa ne champion yi ub làmb instant bi ñoo jor lañ dëkk ci wàllum lutte simple ku ci mel ni ñoom samay grand ñoom ñoom Alou Cité xam nga ñoom Cheikh Tidiane ñoom Yanku ñoom Buubu Joom xam nga amaana bu ma limee sax dinaa juum waaw mais mën naa ne ñu ub làmb simple instant bi fa lañ dëkk muy ñoojoor maa leen nuyu en passage xam nga leen siyaar ñoom ñëpp lu commencé mbin maak mbin maak ba Madina waa si moom leng baa ma baa ma dugal ci séeréer kaa na Madina boo Babac waa si moom leng daal nuno ñojoro nuno ñojoro fof mi simna nuun mhm. lema nuun ga mi woɓɓi nuun o dokor nuun o ndan nuun o keti nuun me heɗa nuun dal nuun sallanama paax i ɓaat ñaan ke bo ke nuun sentu mi te ref roi des arènes ɓisidina nuun a felangaw yaalo e ro waan to jeyami yakar ga ana fi'in waaw wa ñojor la may parce que dama bëgg carrière bi yëpp ñu waxtaan gaa gaa carrière bi gudduwul waaye am na loo xamante ne def nga ko ci làmb simple ndax mbër muy ñëw stade wax naa ko keroog euh, waxati ko waxati ko ne ay siège base nit mun na koo luye mais ay nit kenn mun leen a luye ndax nit fu mu dem tànk ma ko fa yóbbu ak xelam kon mbooloo mi ngay indi. ci làmb bëgg naa xam dëgg-dëgg lan lañ gis ci yow mu doy leen ci làmb simple ba ñu waral nga ànd ak ñoom jóge ci làmb simple xam ne àpp bi kat jot na war naa dugg ci arène nga dugg arène bëre mbappat mbapat bi laa bëgg nga expliquer ma ci bu baax a baax a baax. man loolu dinaa ci sawar a wax dinaa ci sawar a wax ndax man mën naa ne saabu du fóot boppam mais bu ma juumul mën naa ne sama génération képp ku ma ci dajal man a daax a bëre. saabu nag du pour boppam te kuy tagg sa bopp doo juum mais mun naa ne sama génération képp ku ciy takk ngemb man mën naa laa jàngal bëre. war na Serigne Saliou lu lu garaaw laa lay wax baay ji bëreeguma moo tax li ngeen gis noonu noonu noonu noonu lépp lancement la bëreeguma bu ma bëree ngeen dar seen gémmiñ barki Serigne Saliou Mbapat moom ci côté Mbapat dinaa si sawar a wax dafa am benn booy boo xam ne suma ma jamono ji mu ngi serxool lele di bëri wax xam nga yaa ma gën a xam muy booy jàmm gën bi damay tudd tur nag muy Liss Ndiago man moom dañoo bëri mbapat gaa yi fekkee nañ. gaa yi fekkee dalaa daan dégg naa. non maa ko daan mbapat. fekk si man maa ko daan. wala dalaa fekk si nga daan. waaw daf maa fekk si ma daan ko. est-ce que loolu du mu nekkoon à domicile moo tax sa koñ bëre seeg yow moo tax nga daan ko ma sa combat yaa ngi liis. waaw dañoo bëre lamb joo xamante ne lamb ju bëri woon coow la ba lamb ji taxawee. bëri woon coow. gaa yi fekkee nañ lamb ji suma ma juumul sama combat man ak moom la yaakoo moo juumul boo ñaamee da si doon bëre si maak moom la làmb ji yàqoo bu ma juumul man moom dañoo bëre làmb ji yàqu ma daan ko jël boo xamante ne waxuma la entraînement de waxuma la mbapat de entraînement musuma koo daan nit jël bu ma ko daan daanaguma daanaguma ko mbër ci moom laa ko tese ci moom la réussir. yàlla liis barki Serigne Saliou Mbacké. noo ko daanee expliqué ma combat bi carrément nu ngeen ko bëree ak noo ko daanee. man ak moom su ma juumul gars yi yéen a ngi sama ginnaaw te fekkee ngeen làmb ji ah at bi dafa ne pip man moom ma dox ci kawam ma dox ci kaw mu jox ma loxoom ma fiiloo ko wër ko ndoom mu di tax wër ko ndoom mu di tax yaa ngi dégg mu tourné rëcc ci wër ndoom bi fekk maa ngi am ngembam ma am ngembam rek prise ko su ma juumul làmb noonu la demee te noonu la demee sax. nga ni keroog bi ngay génn làmb ja xaaroo ko fa. waaw waaw moom mun ma ko fa woon a xaar ndax làmb ji dafa garaawoon ñu si bëri yaa xaaroon nañ ñi xam nga sax làmb ji du àgg man ak liis du ñu bëre làmb dafa bëri woon coow ba jili man moom rek ci digg géew bi avant ñu bëree lu ne am na fa bënte saw yi fii xam nga man ak sa ñoo nekkoon ci géew bi papa laay laay loo man moom ñoo nekkoon ci géew bi xam nga ak ñoom Fodé gars yooyu noonu woon na Serigne Touba affaire bu doy waar daal affaire bu bu yéeme. mel ni yagliis ñu bëree bëri su ma waxee day mel ni combat wu Modou Lo Balla Gaye la yéen ñaar seen diggante lan moo dox seen diggante yéen ñaar. non mën naa ne loolu la mën naa ne loolu la barki Serigne Saliou ndax gone la may gone ñu nekk ci yoon. est-ce que muy bay waaram may bay sama waar mu bëre su ma jumul six combats ñu xam ko ñaari combats laa bëre ñu xam ma waaw bu ma bëree six combats du ma moom. wóor na Serigne Sall. ñaar xam naa ni euh, ku ko yóbbuwoon arène nationale macha allah ku nekk indi mbooloom ragal naa loolu rek doy na grand combat. loolu mbaxalu pont la. wóor na borom daaru. du ko lekk <laughs> mbaxalu pont keneen ku dul yow du ko du ko jege. wóor na Serigne Saliou keneen ku dul yow du ko jege. <laughs> ki yor café gi anamu. waaw Fall doo ñu xelil bisimilah kaay nii kaay jege si jege si kaay nii kaay nii ñun dañoo war a dañoo war a barkelu ci café gi léegi ñu ñëw foofu. Papa Ndiaye mooy neex café indaaleel kër musique. toog nii moo borom borom baax la. ndeysaan Baye Fall la. sunu mbokku taalibe la taalibe Baye Sidi alxuraan la ñuy taalibe Cheikh Babacar Mbacke mu Kaburo man ak moom ñoo bokk Daaru Salaam. ndeysaan woon na Serigne Saliou. ñu ñëwaat tuuti. ci làmb fi mu toll nii euh, ñii nee nañ làmb dee na ñii nee nañ làmb deewul ñii nee nañ làmb dafa amul sponsor xale yi ne ci làmb te xamuñu ni làmb di dundee ñoo yàq làmb yow mi nga xamante ne xale nga nga dégg ma lu bari dugg ci làmb lan nga gis ni en tant que xale lan moo war a mën a gën a doxal làmb ku ci nekk jàppale ci sa parce que làmb kat ñi ciy dund bari trop. dëgg la Baye Jili xam nga maa ngi wax jooju noonu su ma juumul lu ma koy dégg jamono ji bari na làmb dee na làmb ma xëyee maa ngi gën a gëm ni damay am ma xëyee maa ngi gën a ma xëyee maa ngi gën a gëm ne dañ may dégg ci làmb ba ci corona bii nii biir corona bi damay dem entraîné ji lépp corona la rek pour l'instant mën naa du ko tënk pour l'instant woon na Serigne Touba man gisuma loolu noonu bàyyi jiile mooy li ma la wax sànq rek man làmb moo ma xañ lépp dara maa bàyyi lépp ngir làmb woon na Serigne Saliou ma bàyyi lépp ngir làmb làmb bàyyi jiile dama ma ne làmb moo ma teree dem Espagne samay morom xaaj bi yëpp ñu ngi Espagne ñëpp a ngi Espagne ndax lool lo la ñu xam mbaal am xaalis dem Maroc dem Espagne loolu la ñu xam woon na Serigne Saliou bàjjul man doomu ñoo yor waxtaan ci làmb tuuti. làmb ak ak bi ngay wax. ak bëre bi ngay gëm ni nekk na ci yow euh, ci mbëri kan nga jàpp ni ci làmb moo ci dàq bëre. ci mbëri non man maa ci dàq bëre. ñëpp ñëpp yaa ci dàq ñëpp man maa ci dàq bëre. yaa dàq bëre Modou Lo. du maag moom. yaa dàq bëre Balla Gaye. maa ko dàq bëre fuuf. yaa dàq ñoom ñëpp ku luxum képp kuy tax nga nekk ci làmb maa la dàq bëre. jërëjëf Bor doo tafaat. déggoo ñoom dañuy xaar ay mbokk ma jaaga lañ dañuy xaar ba jamono neex. sama gars yi xam nañ xam ñoom ñoom ragaluñ ma bu nekkul woon dëgg dañ ma naan may mbëre dañ may ñu di ma wooq ci suuf ana wax ji fa mu jóge mais ñoom li ñuy wax ni li may wax nii xam nañ ni loolu moo nekk moo tax ñu bàyyi ma ci biir. xam nga ni VAR tukkal na àdduna. ndeysaan. <laughs> mooy loolu bàyyi ji du ma àgg foofu te bu ma àggee foofu tamit ragaluma loolu. ndax li may wax ni biir na ma ni moo nekk. wóor na yàlla bu ma demoon toll fi ñu toll wala ba tolloog poids lourd yi nga xam ne li may wax ni moo nekk te dinaa la wax benn affaire baa julli su ma bëreeg samay morom dinaa may dinaa ñaan samay lo samay grand frère ñu may ma loxo baa julli dama bëgg nga déglu li may wax ni de dinaa leen ñaan loxo ñu may ma bu ñu ma mënul may ma jaay leen doole fokkati li ñu yore waaw ñan ñooy sa grand frère ci làmb pour l'instant mën naa ne instant bi ñu ma mën a jàppee samay grand frère ne ñoom ma jiitu ci làmb ah comme booy di débuté nii ku si mel nii ay ñoom Tafa Mbër ñoom Ada Fass yi xam nga ay ñoom Armé. boo wuy ma eh, eh, eh, ndànk ndànk Lamsaar bu ñu demoon ba lamb bu ma demoon ba lamb boole ma ak ñoom bàyyi jili nga xeeb leen lu garaaw laa lay wax nii. ca ca kaw waaye xel baa ngi ci suuf. la demee te sama papa dafa am wax ju ma wax. mu ne ma Ibo boo yéeg da ngay téen xool ci kaw waaye boo xoolee suuf mu sori rek mën nga ragal wàccaat kon boo yéeg bul xool ci suuf xoolal ci kaw. te noonu la demee Baye Djily. xool ci kaw ci kaw laay xool du ma du xool waa suuf maa ngi ci kaw te bu neexee yàlla di nga xam ne maa ngi ci kaw mais nag bu loolu weesoo Baye Djily waa mbaar mi waa mafia mbaar mi damay ñëw ci ñoom ku ci mel ni ñoom Souley ñoom Baba ñoom Palamine ñoom moor yaa ngi dégg ñoom Omar Ngom Farias borom ginaar yi <laughs> Farias borom ginaar yi fii ba lim naa ko léegi nii yaa ngi dégg ñoom Mamadi Ndiaye yaa ngi dégg ñoom Oussou Bane borom wasaare dafa am sa benn lonko boo xamante ne wasaare la tudd Oussou Bane wasaare la wasaare la ko gars yi di wooyee waa ju bëgg wasaare lu garaaw laa lay wax nii Oussou Bane ñu koy wooyee wasaare bëgg wasaare nag moo tax ñu di ko wooyee wasaare woon na Serigne Saliou koo koy borom wasaare tey daa xëy sax moo tax xam nga teewul li nii bàyyi li bu tombé woon fi kenn nga jël sa loxo teg sa gémmiñ wóor na Serigne bu tombé woon samedi wala dimanche nga gis lu garaaw fii ci Kër Mbaye wóor na yàlla doomu Kër Mbaye Fall dama fay saf-saaf maanaam daal du ma fi silib caaya laa fi. mais tey li ma bëgg a xam mooy est-ce que ni nga mel ci Kër mbay Fall mbooloo mi ngay déplacé di ko yóbbu boo amee combat di nga am jàppale bi nga bëgg di ko am. Adama am café gi café gi neex na trop macha allah dawalal sama waa ji maa naan dara bàyyi la joxal ma ko. jox ko joxal ma ko. Mhm. waa baa ji li ci côté boobu dinaa ci sawar tontu. naa ci sawar a wax trop ndax man mën naa ne su ma amee combat damay sonn trop Modou Kër Mbaye Fall sax laa ku ci am combat da ngay sonn wóor na Serigne Saliou jàppale bi fi war daal maanaam amuñu ko ñun mbëri ñun Modou Kër Mbaye Fall amuñu ko. yaa ngi dégg ku si mel ni suñuy pa dañoo mën naa ne seetaanuñu sax mais dañoo bàyyi ci biir et ñoom pa Dugouré xam nga et ñoom Babacar Babacar APR et ñoom Bokar am fay waxee et ñoom Thier sama grand sama paa yi dëgg si koñ bi fii nii yaa ngi dégg benn instant ñu ngi siy jàpp mais jàppale bi dafa xaw des. jàppale bi fii ci Kër Mbaye Fall dafa xaw a des te xam nga maa leen di taalal sama loxo xam nga di leen saak di saako si ñoom ñu ñëw jàppale ñu ndax ñun maanaam deretu Kër Mbaye Fall mooy daw suñu yaram te 100 pour cent Kër Mbaye Fall ñun moom la ñuy yëkkati drapeau drapeau Kër Mbaye Fall moom la ñuy xeexal wóor na Serigne Sall kon ñun xam nga dañoo bëgg ñoom ñu ñëw jàppale ñu dooleel ñu ngir jëmmi Kër Mbaye Fall bi ñu bokk quoi wóor na Serigne Touba waa garage su Kalandoo yi tamit xam nga maa leen di sant di leen siyaar baa jili damay dugg Kalandoo billaahi du ma fay fu ma neex laay musuma dugg ka musuma fàttaliku fu ma duggee kalandoo di fay te xaw ma la laa leen defal waa garage kalandoo yi xaw man boog xaw ma la laa leen defal heure ma duggee kalandoo du ma fay te xaw ma loolu pour lan la ku ma si jox paas da ngay bañ. pour nga doon champion lan moo koy maye. waaw su ma juumul laa maa ngi dégg samay sama ñoom papa di am lu ñuy wax ñu ne boo bëggee doon champion da ngay moytu lu bari. mooy lan ak lan waaw da ngay moytu lu bari ndax ne sam daf may xam nga sam papa jaar ci làmb te man mooy sama lépp. man sama papa mooy sama lépp heure bu may bëre ji moom dernier conseil moom moom ma koy jox. donc ne su ma demee ba ci làmb jooju dinañ ma conseil mais dernier conseil ci kër gi sama papa koy jox même bu jëpp bu jógewul ñoo joor ñëw sax dina ma woo téléphone ne ma ak nii ak laa waaw digal na ma nag lu bari ci làmb waaw mais du lépp la ñuy wax bàyyi ji li may dégg jox ma nopp baax pour nga doon champion lan moo koy joxe. gëm sa bopp benn gëm li nga doon ñaar. gëm sa bopp gëm li nga doon waaw. moom mën nga gëm sa bopp te li nga doon gëmoo ko. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñetteel bi mooy nga xam yow yaay kan mën li ngay def boole kook sañ-sañ ndax sañ-sañ lu mu la mayul tamit yaaram bi du la ko xañ mën nga mën lool te boo nekkee ci géew bi sa fit génn yaa ngi ci géew bi na mais sa fit génn géew bi sañ-sañ dafa bokk ci mbër te man bàyyi jëli sama papa laay loolu la may xasee chaque jour papa laay laay loo loolu may xasee chaque jour wàññil sa gëm maanaam maanaam wàññil ñeme gu métti gi ñeme métti gi wàññi ko loolu rek mooy sama jat saabu nag du fóot ba fam noonu la demee bàjj. dama daan dégg ci ñenn ñu ñu ne mbër day teel a tëdd mais fii moom ni mu nekkee ak gars yi toog waxtaan beeg yooyu est-ce que teel a tëdd bi dina fi am. non fii nii mën naa ne mbër mbër mbër day teel a tëdd mën na nekk mën mën na nekk ci côté bu ne mën nga jógee entraînement yaa ngi dégg ndax man gars yi ay nant lañ heure bu ma jógee entraînement dañ ma dalal. damay moom damay teel a dallu te gars yi xam nañ loolu damay teel a dallu bu dul loolu sama damaa bëgg nelaw Baye Djily damaa bëgg récupération xam naa ne récupéré moo mën a may lépp Baye Djily ma tool ma woon nii ba may soog a débuté buñ la wonoon samay photo fii nii tey da nga naan Ibo non kii du yow woon na Serigne Saliou paaxale lañ ma doon wooyee paaxale façon jëla boo xalaat daan naa ko mbër ci mbapat taxaw ñu may wooyee paaxale woon na Serigne Saliou. sa bët ci làmb fan nga ko mooy li Modou Lo bu ko Modou Lo yoratul soxla moo ko ci Modou ci keneen ko ko yor laa jëm de des arènes teg sama bët xam naa ni wax ji dina la yéem mais moo ne sama xel de te bu yàlla li yàlla di may bu ko nanguwul dama koy jëli waaw sama bakkan bi maa ngi ak moom ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dama koy jëli war na Serigne Touba. jaajëf Ibo mu kër Mbaye Fall sa waay yow kafe gi neex na de Fall maa lay ziar bu wér a Jody ñu ngi lay delloo ziar. tur bi naan la. tur bi Papa Ndiaye la quoi. gis ngeen di sa termus xel gaa yëpp café vraiment lu waral loolu. maanaam boo gisee maanaam mu andi termus bi teg ko fii nii da ngeen def geste bu rafet ñu koy rafetlu ndax tey jii ni bu leen neexul ngeen dem beneen bërëb mais amaana na gis xale bi xam ni am na amaana am na avenir nga ñëw seeti ko tey jii am na yeneen champion yu fi nekk ku si mel ni ay DMX mi ngi Laye Brisili champion la boo Niang mi ngi ni sa ginnaaw ay coo doole Laye Brisili amul feneen ñëpp a ngi fi ay champion lañ mais ñu leen di ñaanal yàlla daal tawféex daal di rafet du seen liggéey bu baax a baax a baax a baax ndax maanaam jotaay jotaay bii nii Baye Fall la ko mën a am moo tax ñu ñëw bëggalee leen Café Touba gii ndax sëñ Touba moo ñu ko jëlee woon géej indil ñu ko kon kon ñun maanaam tey jii nii maanaam luñ luñ mën a am Café Touba moo ñu ko gënal. xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb ndax wax naa leen ko waxati leen ko bëgg naa seeti xale yoo xamante ni bu ëllëgee ci làmb boo demee VAR indi seen vidéo démb indi seen vidéo tey di nga xam ne macha allah am na loo xamante ne xale yi def nañ ko ci làmb te buñ sañoon rek képp koo xamante ne day ne ci làmb tanaan samay waajur laa fas yéene teral ci làmb yàlla suñu borom kàttanal la doole la ba ni nga ko bëggee nga defee ko nu kawe njort noonu. maa ngi gis seen waa kër a ngi toog ci bundu kër gi. maa ngi gis waa mbedd meeg ñëpp ñu ngi ñëw. gars yi lu ñuy gën di toog rek mboolo mbooloo mi di gën di bari muy mel ni am na loo xamante ni ji nga ko waa Kër Mbaye Fall. ma waral ku gis caméra yeeg micro yi rek dañuy daw ñëw loolu lal waaw mooy ni ma la ko waxee woon ci njëlbeen bi rek lépp lépp ab taalibe la quoi kenn ku si nekk xam nga muy mag muy xale muy mère muy muy paa muy mère muy góor muy jigéen kenn kenn ku si nekk li nga moom ma jox la ko ba mu mat sëkk du ma la jéggi te duma la dépassé loolu képp la du leneen war na sëriñ Touba lu dul ab taalibe comme ni ko sama doomu nday di waxee Fall lu dul ab taalibe safuma war na Serigne Saliou baa jëlee xale laa lu fee bët man Ibou bariwul Serigne Saliou Mbacke képp nga mën a wax ma bëgg donc moom rek nga ma mën a wax ma bëgg mais tout tànk laa mais lu fee bët bariwul war na Serigne Touba lu ab taalibe nag safuma. lépp taalibe la rek lépp ci taalibe laa ko teg waaw kenn kenn ku si ne li nga moom ma jox la ko ma mu mat sëkk noonu kese la demee wóor na Serigne Saliou. lan nga bëggoon wax loo xamante ne laajuma la ko te bëggoon nga ko wax. muy comme ñun xam Kër Mbaye Fall ñun dañ fay yàgg mën naa ne pour fii lañ feree daal Kër Mbaye Fall la ñu feree te dafa am ñoo xamante ne tey lañ ñëw Kër mbay faal tey tey jii nii bëgg ñoo utiliser xam nga fu may waxee gën ñoo bëgg moom maanaam suñu dëkk maanaam dañ ñoo rax bokkuñu su ñun dañ ñoo rax bokkuñu si ñun am nga jàpp suñu booy di leen créer ay problème jàpp suñu booy di leen tëjlu te loolu noonu noonu noonu mun naa ne neexul ci benn xolu waajur. ñuy def loolu lan lañ ci ci gox bi ak ñan lañ. maanaam benn affaire sécurité la daal. benn benn genre sécurité lañ fi créé mais ñun bañuñu ko ñu sécurité suñu dëkk bañuñu ko ñu sécurité suñu koñ mais ñun suñu koñ mun nañ koo sécurité ñun ñu fi dëkk. ñun jeunesse bi dëkk ci Kër Mbaye ci Kër Mbaye Fall mën nañoo sécurité suñu bopp mën nañoo sécurité suñu bopp suñu dëkk. pas jàpp ay doomu jaamur di leen lu ñu di leen di tëj ay deux ans ñu ñu leen di tëj ay trois ans baa ji loolu dafa métti ci koo xamante ne xamoo la jariñ seen waa kër wër na sëriñ Touba te ñoom tey lañ ñëw kër Mbaye Fall ñun ñi nga xam ne démb lañ kër Mbaye Fall ñu bëgg ñoo génnee kër Mbaye Fall bëgg a dugg ñoom baa ji est-ce que loolu rafet na loolu rafetul wër na sëriñ Touba su ma sañoon daal xam nga ñoo seen loolu noonu ñu def ñu arrêté ko dagu ko wër na Serigne Touba ñun kër Mbaye Fall képp moo ñor ñun mën nañu koo defaral suñu bopp maa ngi waajal benn affaire 100 pour cent Kër Mbaye Fall bi damay dégg ay 100 pour cent Pikine 100 pour cent Guédiawaye man maa ngi dox ci 100 pour cent Kër Mbaye Fall te ci kanam tuuti xam naa ne bis bu demee ba dëgëraat baa jël dinaa la woowaat nga ñëwaat fi bis bu ñuy def marche bi bis bu ñuy def marche dinaa la woo nga ñëw teewee loolu ñëw jëlal ñu loolu 100 pour cent Kër Mbaye Fall ba ci kàttanu yàlla woon na Serigne Touba mais sama booy nekk ci biir xam nga maa ngi leen nuyu siyaar di leen nuyu ku ci mel ni ñoom raas yaa ngi dégg ñoom Aliou Undu yaa ngi dégg ñoom Rapathia gars yi sama rakk buuba ak yeneen gars yi ñoom liif yaa ngi dégg maa xam nga ñu muñ li nattu la te nattu yàggul day jeex léegi ñu xëy nekkaat ci leneen waaw maa ngi gën a xam nga di leen gën a xamal ne li àdduna la daal nattu jaam rek lay dal jaam rek lay dal jaam dund moom fekk yaa ngi dund dee wàccu la nattu wàccu la wane Serigne Touba te ñun ay taalibe Serigne Touba lañ lu dal si ñun daal dañ koy nangu noonu la demee. maa ngi jaajëfal bu baax a baax. maa la koy delloo baa ji noonu demee jàmm si yow rek. jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen ko noonu lañ leen di jaajëfalee bu baax a baax a baax fépp fu nekk di seetaan wasaare làmb bu leen fàttee abonné ci chaîne bi ah mbokk bu ngeen laalee rek bu ngeen laalee fu xonq foofu abone dina bindal loo xamante ni da gis benn cloche bu fa nekk kolos bi boo laalee rek dina firéeku bu firéekoo nga xam ne yaa ngi abonné nga ci wasaare làmb lépp lu dugg rek ci moment biñ ko dugalee di ci jot ñuy jëfal bu baax a baax a baax sama waaja nga xam ne mooy euh, Alsaan Kam moom mi nga xamante ne mooy sama transitaire bi nga xam ne macha allah yàgg na maa teral sama waajooju ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax. patron Omar Ndiaye. ma koy jaajëfal xam na lañ koy waxee xam nga transitaire lañ koy wax xam nu mu tudd noonu man damaa am transitaire muy am am fay sama transitaire heure mu amee combat da si jàpp xaalis bu bari la may may. wóor na Serigne laman nag li ma may ci xaalis nit mayagu ma ko laman laman Doucouré li may may ci xaalis nit mayagu ma ko waa Espagne sama combat bi passé 300000 lañ ma yónnee waa Baaj Jili mooy ni ma la ko waxee woon rek sama mbokk séeréer yi nekk Espagne ku si mel ni ñoom Gris Bordeaux Gris Bordeaux Mam mais daanu na portable o portable buum to iPhone buum Papa Dia boy bi Baye Lamine Paco Diaz Colombo Edouard o portable boom to iphone boom itam o iphone buyimo samsung buyimo portable o lakas iphone soom a refa nge iphone buyim o iphone soom buum nuno waa groupe sport mi simnama nuno fop koy wa simon leng li ma jaaxal mooy dégguma li nga wax waaye xam naa ne iphone bi nga bëgg a sas cinq xaw ma six waa dama leen ne sama grand frère ñi nekk Espagne waa ñoojoor yi nekk Espagne dama leen ne ñu may sama iphone soxla ma soxlawu ma LG soxlawu ma Itel soxlawu ma leneen lu dul iPhone iPhone rek laa bëgg nekk fii di porté waa Tol Dias nekk Rydhies di porté waa Tol Dias noo la demee. jaajëf noo la demee Baye Djily. jaajëfal bu baax a baax a baax. jaajëfaat jaajëfaat Baye Djily mais ñoom ameen maal maa ngi leen di bëggee ñoom Laylo Zé Lamine Aliou yaa ngi dégg Serifo. booy Lamine Géwal maa leen di bëggee ay Birane ay Tons mafia bi gars yi daal su ma limee di ay Cité mu ngi day doog a ñëw sama doomu ndey la sama combat maa ngi lis moom muy woon ci digg géew bi du ma ko fàtte mukk photo yaa ngi ci kaw waaw moom mu ngi ci xarnu bi yaa ma gën a am ay aale yaa ay mbaxal mbaxal ak mooy mbaxal borom Cabrousse bi maa ngi koy bëggee bu baax mais maa ngi bëggee grand frère am borom Espagne Fulaay koo koy borom Bilbao mais sama mag bu ma bokkal ndey ak baay bu ma ko tuddul du ma gor kooku baay jël mooy sama lépp Moustapha mooy borom Bilbao maa ngi koy bëgg ci kooku laa topp kooku laa am mag bu góor mais maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm lépp lu muy def ci man maa ngi koy gis li muy jéem ci man tamit maa ngi koy gis waaw may na ma terrain nag du ma ko nëbb <laughs> may ma terrain du ko nëbb dama koy wax tey xam nga gars yi di ko dégg waaw mais nañ yemagum foofu rek. noo demee bàjj yàlla na nga yeggaleeg jàmm ak salaam mbokk yi kon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba léegi allah ci beneen champion fii ci wasaare làmb jërë ngeen jëf.